Khalifa Babacar Sall Karim Meïssa Wade day mën nañoo bokk léegi ci élection ci réew mi l'info yéeni kaay moo ko xamle yéeni kaay bi naan ma niki démb daal assemblée nationale teggil na leen coono ne leen nañ leen tafaloon ni étiquette ci réew mi ne leen élection mënta am ba ngeen bokk day naa ko bis niki tey le mandat naan déet mën nañ leen fal te ñoom it mën nañoo fale maanaam mën nañoo wote ji te mën nañ leen woteel l'info naan kon moo taxit niki démb day waa Pastef ak nga xam ne ñoom ñooy waa taxaw keteme daal yekkante nañ ko ci assemblée nationale ci palaat gi yoor yoor naan metti waa Pastef mooy assemblée nationale boo xam ne dañ ko fee technique léegi ngir muy def yu salte yu ñaaw yu bon ci réew mi daal di soppi nag na nga xam ne noonu la ñuy tëggee élection ci réew mi ñi nga xam ni ñoo doon ay noon démb daal di doon ay soppe tey diggante Benno Bokk Yaakaar Taxawu ak Wallu ñuy togg mbaxal ñuy ràcc dëxin di waxtaan ci seen biir jubo juboo goo xam na doy na waar yéene kaay bii di yoor yoor naan maan assemblée nationale nag au lieu mu daal di saafara jafe askan wi doon foo xam ne fa la ñuy waxtaanee jafe askan wi amal débat public déedéet assemblée bi kay léegi foofee la ñuy tër ay opposant di leen reen di xëteet askan wi di seetaan ne pat Ousmane Sonko ma nga xam ne nag moo leen yekk ketemme door leen ay missile sol-sol ñu daal di koy nuppiloo Khalifa Ababacar Sall Karim Meïssa Wade mi nga xam ne yor-yor nee na ñoo nangu nag daal di ciy takk ñoom nag daal di nañu nuwaat saraax ci géem bokkaat tribune yéen a kaay ne ma déet bu ko rafetal ñoom kay dañ leen boole waat ci làngu politique gi ne leen nag mën ngeen bokk ci élection niñ koy tëggee ci réew mi xam nga yoon Karim ak Khalifa Babacar Sall sàcc état bu Sénégal jël leen tuñ tuñal leen tëj leen ne leen da ngeen jël liñ leen dénkoon ngir askan wi jaawale koog seeni gafa daal di lekkaalalug askan wi ñoom ñaari kaa yee di Khalifa Karim Meïssa Wade yoon ne leen mani la la ma leen di toppee ba tey dañul de lan leen ji ñoon ne da ngeen sàccalalu askan wi teggikuwu leen waaye nag mën ngeen bokkaat ci élection ci réew mi Ousmane Sonko mi nga xam ne mani la kenn neewu ko niib ci genn ak càcc yoon ne ko yow Sonko demal yee média bi naan maan ñu indi article L57 daal di koy wote fas yéene nag gën a dëggal Ousmane Sonko bi nga xam ne dañ ne ko doo bokk ci élection l'évidence yéene kaay naan maan Antoine Félix Diome qui est Antoine Félix Diome mi nga xam ne jamono ja mu nekkee agent judiciaire de l'État moo suuxaloon gaa yi fexe woon ba Karim sa Wade ji ñag càccam gii gën a dëggu tey ji moom Antoine Félix Diome nekk ministre de l'intérieur moo taxaw ca pencum assemblée nationale layal Karim Meïssa Wade fexe ba mu bokkaat ci élection ci réew mi Vox Populi naan en tout cas lu ci Wade Khalifa Babacar Sall bokk na Pastef naan dil rek xanaa du dil politique moo waral lii waa Grand Place naan maan xaaf moom ma nga toog ci bopp koñam di xaar nag ñu daal di koy setal wecc te setal wecc gi nag du yàgg assemblée nationale dina ci soobu waxtu woowu man ni la ña nga xam ne ñoom la bokkal yeewi askan wi dee catu bët lañ koy xoolee di ko jor ay xeer moom xalifa ba Babacar Sall ba maar day taali jàppee ko koo xam ne nag dafa daal di war yeewi askan wi daal di jàpp seen coalition boobee daal di koy dammat dammat dammat ba peeseetul dara gaay naan pareegul ak ñoom ndax am nay leader yoo xam ne ca yeewi boo moytuwul man la daanu jëm kaso yeneen leader yoo xam ne nekkunu yeewi bokk na ci ñoom Bougane Gueye Dany waa grand place naan kon fooy toog xoolal gëy looy wax xoolal ndax nag fi mu ne ak machine judiciaire bi daal nin ko rythmé daal di ko doxal muy daal di dox ci réew mi réew mi mel ni lido omeeg dugg kaso ne fi yow Bougane Gueye Dany yaa ngi ci viseur bi te boo deful ndànk ma ni la kaso moom dina la ñeel dil politique yi nga xam ne tëgg ko ci réew mi dubbee nag ab dialogue national national boo xam ne nii waxtaan la yéen kaay bi naan ko dee dil la dil goo xam ne yow bugaan géy dani boo moytuwul ñay tàbbi kaso yaa cay topp fooy dem xoolal looy wax xoolal bugaan ma ne la yaa ngi ci gëtu gaa yi ngir tàbbal la kaso ci dil wi ca mujjantal ga waa grand place naan man Khalifa Ababacar Sall day réhabilité nañ ko yeesal nañ ko bokkaat na ci langu politique gi moom ba Ababacar Sall Ousmane Sonko nag waxtu woowu moom ma nga ca kaso ba ñu yóbbu ko nag faf sax Ousmane Sonko ci urgence tribune yéen kaay naan man Sonko nga ca l'hôpital principal gannaaw ba nga xiifal ba daal di tàbbi ci malaise boo xam ni maar day taali vox populi naan man grève de la faim day moo daal di yóbbu Ousmane Sonko l'hôpital Ousmane Sonko nag ñu daal di koy transféré ci l'hôpital principal mu fekki fa Cheikh Bara Ndiaye yéen kaay bi naan man Cheikh baara Ndiaye ci réanimation Papa Alé Niang nekk ci urgence Hannibal Djim nekk ca fa nga xam ni fa la ñuy fajee 24 heures yéen kaay naan man Ousmane Sonko sonn na wala libération yéen kaay naan man ay ñoñam tamit sonn nañ ndax du moom Sonko dong jamono ji moo daal di laatiga Fatima Zahra Wague coordonnatrice bu JPS Tambacounda ma nga ca kaso Jalika Ndaw ñu gën ko xam ci Aji Ndaw jàpp nañ ko ca Yoof Maodo Ba bokk ca Pastef France déglu nañ ko ca Mbuur laata ñu ko bàyyi daal di jàppaat Cheikh Ahmed Tidiane xalifa Niass xali bu leew na seen ci Walf Quotidien naan ab réew dëgg bu amee gouvernement war naa amub opposition tribune yéen kaay naan kon réewum Sénégal day daanaka opposition bi mani la ñi ngi cib kaso suur soir naan man Ousmane Sonko ngay jéem de ma ngay jéem lu mu man waaye fi mu ne daal metti na ci moom le point yéen kaay naan man avocat mba Juan moom it mi ngi ci guddi bët setagul le soleil yéen kaay naan man ñu ngi koy toppee ci réewum Sénégal loo xam ne bés bu matee moom Branco day dana matt loxoom daal di wiccax wala libération yéen kaay naan man parquet bi daal ubbi naa procédure gu yees goo xam ne jëmalewu ko ci kenn ku dul ci Juan Branco xam nga Juan mii ñu ngi ko jàppee ci géejug Mauritanie gi daal di jagat-jagatee yóbbu division des investigations criminelles gannaaw bi ñu daal di jël Juan Branco yóbbu ca rëbës ni ki démb rek génne nañ ko ca rëbës yóbbu ca sûreté urbaine déglu moom Juan naka la enquêteurs yi tàmbalee wax ak moom la libère daal di tàmbalee noppi Juan Branco yéene kaay ne ma ma nga cëb xiifal ka nga xam ni moo fi teewal Espagne ci réew mi daal dinay dem seeti Juan Branco nga xam ni fa bokk laataa loolu ma ni la France ci boppam ña ngay sàkku ñu bàyyi Juan Branco niki noonu it bâtonnier bu Sénégal di sàkku ñu bàyyi maître Babacar Ndiaye mi nga xam ne nee ñu nag moo jàppale Juan Branco le point yéene kaay naan man Juan Branco dafa làqu dugg ci réew mi làqu génn ci réew mi dem ba Mauritanie ñu ne ko nii lobs naan moo taxit mi ngi ci guddi gi bër setagul ndax Sénégal ma ngay toppe Juan Branco loo xam ne maar day taali le regard naan prisonnier la boo xam ne day nar na jaaxal nguur gi waxtu waw le point yéeni kaay naan man Mimi Touré ma ngay kaas jàppam ca kër ayib gannaaw ba nga xam ne police bi téye na ko ca mar marsaasum ndeke yoo moom Mimi Touré ci boppam woto ba mu yoroon moom Mimi yorul benn këyit goo xam ne war na mën a tax ñu ne kii Mimi ture du passeport du carte d'identité te Mimi nag bëggoon jaar ca barrage ba ca anam woo xam ne maar day taali waxtu waw turbine yéeni kaay naan man président Sall moom it ma nga ca guddi gu bër sa tegul ndax ci Benno Bokk Yaakaar day ñu ngi koy dëkkee fu ne gars yi nag nangootuñu président Macky Sall ne leen jaar leen ñu daal di jaar bés bu tabbee ka muy tabb ngir mu jiite ñu dana métti ci président Macky Sall wala ndax nag waa Benno Bokk Yaakaar ci boppam ñoo ko joxatul gëdd l'exclusive yéene kaay naan man boobu beneen candidat ngi nii taxaw borom moom pays mon avenir Ibrahima Sissoko xamle na ni candidat la 2024 Ibrahima Sissoko naan réew mi day leen na fi am waxtaane ko daal di koy pencoo ngir mu jëm kanam fi mu ne Sénégal ñi ngi koy seetaan muy jëm ci yoon goo xam ne maar day taali Ibrahima Sissoko naan njàng meeg njàngal mi warees na ko waxtaane wérgu yaram warees na ko waxtaane ci réew mi secteur informel warees na ko waxtaane ci réew mi état de droit it war a bokk ci priorité Sénégal na xam ne yore woon nañ ko mille milliards Covid 19 bi Ibrahima ne dafa war leer ci bopp sénégalais yi bu Sénégal ñu daal di koy joyanti mu meloon na mu meloon bu njëkk autosuffisance alimentaire gan doon waxtaane ci réew mi mënees naa doon réalité bu ñu xoolee nag feem yi nga xam ne warees nañu faa jaarloo Ibrahima naan tànk ñi ngi importé te mani la mbir yi day gën a day gën a métti ci ñun turbine sport naan waxtu woow nañu wax ci wàllu basketball bi nga xam ne Tafa Gaye moo doon entraîné sunu gaynde yu jigéen yi yéene bi naan maan américaine ba nga xam ne moo nekkoon ci équipe ba dafa ba futtu merewul kenn nag ku dul Tafa Gaye ndax nee na nag Tafa Gaye daf leen bàyyee match ba daal di gedd dem Tafa bu dóorul ay joueuse ma ngay gedd yéene kaay bi naan man Sénégal lu mu ragalee Tafa Gaye ba mënu koo dàq laa xamul turbine naan maan déet loo wax wax ci basket bi war a mën a wax nag ci coow li nga xam ne am na ci diwaanu pikin say